doomu yaay Baye Djili maa ngi lay fay. sant Serigne Touba bu baax. waa Malika. waa Malika benn. ana waa benn ñëpp a ngi fa. ana waa yëmbalal waa ñëpp a ngi fa. incha Kër Sega. seen xarit seen doomu nday euh, di Aline Mbaye Nder numéro 2. di def open press nga teew sa diggante ak Aline Mbaye Nder lan la. waaw maa ngi nuyu tund Tiwaan bi yëpp. Kër Ndiob Kër Bakar Kër Baba Alima kër ma kër ma yëpp maa ngi leen di bëggee tundu tundu tundu Tivaouane bi yëpp ndax fii man mii naaf yàgg nañ maa ngeem may bëre si fii waa ndeer nag kenn la ci man suma doomu nday ñu bokk écrit bokk lépp di xaacaloo di dóorandoo yaakaar naa ne bu amoon open press fii ba Makka damay dagg bee dem ci kàttanu yàlla ak mbaaxam da koy di ko ñaanal ndam ci barke Serigne Saliou may yaakaar ñu bokk ko yaakaar yàlla na ko yàlla suturaal ci bisu le mu daan Batista jël bu amul benn werante incha allah rabi. waaw nga gis Batista taay bi ni mu toll. boo xoolee moo ëpp moo sut Alioune Mbaye Nder moo ko ak façon bëre bi Batista di bëre boo doon nan la mën a góorgóorloo ci combat bi ba am ci ndam. ku daan naaru ghetto daan ogis daan ay ndaanaan yu bëree bëri ci laamu Nder dama ne xamaguñ ko. parce que mbëru fii la gars jàpp nañ ko benn ngaa ko wala ndeer dafa dafa dafa ràññee booy yi te yëpp da leen a daan Batista mu gën a néew ci ñun bëreel pour nga dégg wax ma ban adversaire bu nga xam ne tey am na euh, ëpp na dayo Batista ëpp na ko dayo ci ñun bëreel doo ma ko wax xanaa avant moo nekk benn baraak mais bi mu nekkee benn baraak yo léegi ñu yaa ko ngemb di ko indi musul am adversaire bu nga xam ne moo daa daam daa toll ni Batista ñu am ñëpp ñoo ko supérieur Batista xeex ñëpp xam nañ ni la da ndeer boo xoolee xeex bi Batista moo ko gën a mokkulee xeex boo ko doon bëri digal ci combat bi di nga ne ko mu taxaw xeex ak Batista ndeer man kuy xeex laa ko yéene ndax boo ñëwee pour xeex mu jàpp la daan la làmb ji jeex Batista bu loxoy jóg ndeer di ko daan lu leer laa la wax ku mënul bëre rek moo fay nekk di xeex jëmale suba de mais ñi mën dañuy ñëw rek prouver dem yow foo toll man man maa ngi nii amaguma combat promoteur yi nag ñenn ñi maa ngi déggante tey wax sama combat ñu naan nii naa mais man dinaa defar sama ngandi déclaration incha allah rabbi presse maak moom à vie pour dire pour te dire ñu am bu ñu inquiété wu ci loolu wallahi bu desee moom kese promoteur bàyyi naa bëre damay ñëw def reporter loolu man maa ko wax. si wasaare allahu rabbi du ci dañ kàddu boobu ma liggéey si wasaare. wasaare laa dem garaaw ma nii naa est-ce que du ma commencé sax comme ñu ngi daw te ñëw jiiri. deseeg da mel na ne wasaare. wasaare daal fa la affaire bi nekk. ñëw naa. arme bu benn baraak. ndeysaan. tooni kaay.